c'est euh, bon waaw bokkentoon li nuyu nañ leen tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy kër parrain bi euh, mu ñu tudd Omar Bass les jeunes mara ñu tuddee ko làmb ji nga xamante ne moo dox ci diggante ambulance bu Thiès ak Wuli 2 tey ñëw seet si ko fekk ko ak ay nitam ñu daal di toog mun ne jotaay bi am solo euh, ñu daal di nuyu ki nga xamante rek mooy suñu grand grand fara ñu ngi lay nuyu waa ku baax maa ngi lay fay di la nuyu bu baax ginnaaw bu ñu sant yàlla julli Seydina Mohamed tey ñoo ngi fii comme comme ni nga ko waxee léegi Comme euh, Omar Bas, Bass mi nga na tay mom moy parrain quoi avec Omar Bas, bon un sûr qui qui laisse son empreinte et exprimer la personnalité de celui qui l'endosse bo dit mo Omar Bass euh, ñu fi euh, di di bañ nañ ko ba ngañ jàmba borom géejaay lañ koy woowe soo déggee loolu aussi mooy dafa seq ak ñëpp jàmm euh, ku ma gis aussi def la comme boppam ca àdduna dara gën cee neex euh, considération considération dafa gën a neex dafa gën a neex alal quoi looloo tax suñu looloo waral nag suñu teewaay fii ñu fekk si fi ku baax muy muy Omar Baas euh, nee nañ nag ku la tuddee nga jël ci moom juróom-ñaari jukko quoi moom dafa wuyoo tur yi beneen bi aussi muy taalibe ci ci Serigne Saliou Mbacké boroom xel kom jaaga taalibe Serigne Saliou Mbacke rek ça veut tout dire ça veut dire que ça veut ñëpp la Omarum Géejawaay la macha allah. bon xanaa ko yëg-yëg yëg-yëgu kontante ak mbégte parce que tuddee nañ ko nag ku ku ku mat a tuddee euh, tuddee nañ ko koo xam ne vraiment aussi euh, wàccuñu ko quoi comme ni ma la ko waxee léegi Omar moom ñëpp la mbaax nag mënut weesu mbaax le bien fait n'est jamais perdu Jeff Duba du du musa niiw ki ko aussi dafa nekk koo xam ne ku fonk la comme j'ai l'habitude de le dire euh, la famille est le creuset où l'enfant se façonne quoi mais la société doit l'aider à assumer cette fonction apprendre à l'enfant à ôter ses lunettes pour regarder bien le le monde wala fi sax dañ koy wax feccum luy su ya yaa jaatee ci ci mbagg muy fonk askanam fonk it am fum ko tek wax deug yalla nak mo waral suñu teway fi ñu and ak délégation bu ala dawme bi macha allah. ñu gis aussi tay ni ko nit ñi wuyso bi ni mu mel ñun fekk ko fi kërëm loolu lan nga ci mëna jang jangal bi ma ci am bi du tuti mais borom lay tollal parce que nak nit ñi kenn momu len yegg dafa gëna neex alal alal fay jeex mais bo amé nit ñi rek am nga te connaissance bi ko yalla may macha allah indi li lepp motax akhlu lamb jox ko bopp ak it mu nekk koo xam ni bépp mbër bu xew la ci département bi lu mel ni le roi des arènes Balla gay lu mel ni euh, ñoom maam Balla hmm? ñu mel ni mbër yi nga xam ni géej waay lañ fekk baax ku ci am bis macha allah da ciy taxaw taxawaay bu mat sëkk quoi macha allah. sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj mooy euh, drapeau bi yàlla nay njit laayam euh, yàlla nañ ci dem ci bisimilah rahmaani rahim ñibbi si waat ci alhamdulilah rabil alamin yàlla nag defal ñu ndam que le meilleur gagne. waaw bokk internet yi ñu ngi ak le parrain mu nekk Omar Bass le jeune mara ñu tuddee ko làmb ji nga xamante ne tey moo ram stade Iba Mar Diop euh, diggante ki nga xamante ni mooy euh, Wouly 2 ak euh, ambulance bu Thiès donc amaatu ñu nuyu ko ñu ngi lay nuyu Omar. salaamaaleykum wa ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi di sant sëriñ Touba di sant sëriñ Saalihu Mbakke suñu yaakaar tey ak ëllëg ñu ngi leen di siyaar bu wér a waa internet bi waa Géejawaay ñu ngi leen di siyaar bu wér a wér tey ñu gis bis bu toll ni Assane ñëw daal la koy tuddee ban yëg-yëg nga ci am waaw am naa ci yëg bu foor ndax Assane maag moom dañoo am fu bari foo xam ne dañ faa jaar mu nekk sama nit ñuy gise guddi gise bëccëg mu am yëg-yëg boo xam te ni amul dara nee lu ma war a mën a delloo njukkal lu ci li mu am te nit ki nag li nga am ci ngay delloo nit ñi njukkal ñu koy nangu bu baax a baax a baax di ko wax ni ko kontaan nañ ci bis bu baax jërëjëf. ñu gis également ni la nit ñi wuyu soo ñoo fekk fi ay champion ku ci mel ni Mame Balla Farouz ñoom Lirou Diane Youssou Ndour kët su Lamine donc mun naa ni daal mu doon jotaay bu am solo loolu lan la def ci yow. waaw jotaayu bii du ma bett parce que ñii maak ñoom guddi ak bëccëg suba ak ngoon maak ñoom ñooy nekk. maak ñoom du du làmb ji moo ñu boole maak ñoom du du àdduna maak ñoom yaakaar naa ni li ñuy dund rek di dund di dund dund gor maak ñoom loolu li ñuy dund ma waral teewaay bi kenn bettu ci ñoom ñëpp ku ci ñëwit kenn bettu ma ci ndax ñoom ñëpp samay xarit lañ te ku ma ci woow di ma bu yu loolu jàmm laa séq ak ñoom ak salaam waaw. turu le jeune mara bi lan moo ko waral. ah jeune mara moom jeune mara moom gars yi dañuy wax jeune mara rek ay taalibu Serigne Saliou yu xeebu lañ rek xamante ni duñu dara. gars yi ñooy wax la Jeune Mara rek mais Jeune Mara moom amut. Ah, mais Omar gars yi boo nekkul borom mbir duñ la tuddee lool. waaw borom mbir moom <laughs> déggalu ma la lépp ci yaakaaru Serigne Saliou xam nga moom dañ ngaa nekk borom mbir tamit am foo ko wéer waaye ñun Serigne Saliou la ñuy yaakaaree lépp daal looloo yor xam naa Jeune Mara bi waaye fii ak sëñ ngi fi moom sëñ Saliou di fi ne ñun moom amuñu beneen tur bu dul taalibe sëñ Saliou waaw daal lañu am. am na solo léegi lan ngay tàggatoo ak ban message ngay lancé à l'endroit de la population sénégalaise. waaw di santaat yàlla bu baax a baax a baax di sant ñi nga xamante ni dañoo ñëw bàyyi seen lépp wuy si ma di leen wax ni leen kontaan naa am na fu mu tàmbalee am fu mu yem waaye nag man awma dara mënuma dara maa ngi ñaan ci Serigne Saliou Mbacke ku si nekk ci li nga yëngu yàlla na ko yàlla suñu borom cëral ba nga am ci lépp loo xamante ni rek moom nga bëgg ci sa àdduna ci barke Cheikhul Khadim loolu daal moom daay wax ni leen kontaan naa ci bu baax a baax a baax di gërëm sama baay di sant sama yaay di sant ñëpp rek sant sama soxna di sant ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kër gi di ma jàppale muy booy yi nga xamante ni ci mën nañu yéeru di sant àdduna yëpp gërëm naa ñëpp kaw ba ci suuf du ma lim ndax man ñëpp laa bokk ñëpp samay waay dañ kon daal gërëm naa képp ku fi teew ak ku fi teewul gërëm naa ñëpp ak sëñ Bamba ñu lay sant bu baax waaw bokk internet yi ba tey ñu fekk fi ko xam te ni le grand Lirou kenn door ko présenté mu xam maa ngi ko tuddee le chouchou des jeunes lutteurs de Guédiawaye parce que ñëpp koy bëggee muy daaneel ñëpp euh, boo waxee rek vraiment donc ñëpp daal kontaan ci moom grand Lirou ñu ngeen bokk su ñun ñu bokk ci yéen ñu dëkk Guédiawaye nekk magu Guédiawaye nekk monument Guédiawaye ah soo leen ñëwee fii wàcc ngeen. laa ilaha illa ñoo ngeen fu jërë ñëw kan grand marabout le jeune de marabout muy kan Omar Bass ñu koy wax Omar Bass da lay ñaanal di la bokkal waaw da ngay ñew mu ñaanal la jox la nga sangu ba para tek ci di la di am di yëkkat di jox ah kon nag kooku su amé bis bu melni ñukoy delo ñukul ñun ñëpp wara tew teew ndax man suma ñe ñewul na naa ñëpp ñëpp ñëpp kenn desul muy Balla Gaye 2 ñoom la dageeroo ñoom guy gi tu ñom sa kess ñëpp tay ngi xolal tay so gesso gis euh, Lamine Golo ndeysaan ay borom top 5 maam Balla ngi nii borom jëlee bu rëy bu barki dem moo Ndiaye. stade Iba Mar Youssou Ndour mi ngi ne ah sa gars yi ak tey jeune de yëpp ngi fi. kan moo xewle Omar Baas Omar Baas mooy kan mooy jeune de la marabout nekk géej way di ñaanal ñëpp man de daf may ñaanal ba pare di ma bokkal. te xam nga loolu yombul ca jeune de marabout kon na nañ ko ñaanal mu gudd fan am wér gi yaram li mu bëgg géej way moo ko xam. li mu moo xam yàlla na ko yàlla dafa te nag xoolal yemul géej tey soo demee Kër Massar wala nga dem jàmm gën xoolal foo rus mi ngi nii toog xoolal beneen booy mbëru géejew mbëru jàmm gën mbëru fépp mbëru fi ñëw loolu si moom la moom moo baax kon nañu ko ñaanal gudd fan at wér gi yaram euh, mu euh, kii am nu mu tudd euh, mu àggale ak ndawam te li mu yéene gi mu am ci ñun yàlla àggale ko yàlla ko yàlla defal jàmm. ay Omar Bass ay Omar Bass kenn du Omar. xëy liiru foofu laay taxaw tuuti sax parce que laaj naa ko léegi lan moo waral turu jeune maraab nangu cee sori est-ce que mën ne ko te jeune de marabout c'est que dafa xale la am lu ko yàlla may mu yaakaar kenn ku dul sëñ Saliou waaw cim Salif sa caisse numéro 2 maa ngi koy tudd léegi ñëw na kon le fils de Double Less rakku Balla Gaye 2 grand champion muy kan doomu ndeyu Omar Baas. borom rapidité d'exécution ba. waaw borom rapidité d'exécution hmm? doomu ndeyu Omar Baas comprendre nga tey fii ku ñëw da war a ñëw ku ñëwul xam nga ni sa xol mi ngi fi te ñëwul man ñëwal naa ñëpp. muy Balla Gaye 2 ñoom la de guerre ñoom guy gi tout képp kuy ngemboo dëkk Guédiawaye man ñëwal naa la waaw ndax Omar Baas bisam du ndaw ndax ci moom la Omar moo baax yàlla ko yàlla defal jàmm li mu bëgg moo xam yàlla na ko yàlla àggale yéenam waaw te man nag xawma la la man gars yi dañ maa bëgg ah jeune de marabout yi dan ma bëgg man man dañ maa bëgg kon nag loolu sant yàlla la euh, sama waaj ji la Touba sàmma nduur Ndour dëkk Touba jeune de marabout bëgg ma bëgg a dee daf ñaanal di ma bokkal waay waay waay waay lii lu koy fay neexul waaye weesu na neex non non li neexul dafa am borom muy booy boobu moo ko moom man booy bu sequma ak moom dara leen da man daal dama ne lii lu koy fay lu koy fay. kon boo grand livre lii lu koy fay. waaw lii lu koy fay te man seen seen maaraabu yi dañ maa bëgg ah waaye waaye géej way ca kaw ca kanam waaye ku bañ géej way yàqam. waay waaye grand sa kàddu gu mujj. ah cam ay may booy ay may booy waxoon naa la ko naa la ko waxaat eh, rek ku la jàngal olof. ay sama rakk jàng ku la jàngal olof yow ci kaw ci kanam yàlla na yàlla fal cat maay booy ci kaw ci kanam ay sama gars yi waa géej beka ay ngi cam ay la ngay caméra ay li ngay caméra yow xam nga da ngeen a bokk su ñun la bekk le conteneur la bekay kumbul ah Bécaye Koundoul la ngi nii waaye ci kaw ci kanam jafe na yàlla defal jàmm yéen daal ci kaw ci nga naan amee télé télé télé. jàmm ba tey ñu daal fi fekk ki nga xamante ni mooy le fils de Double Less le frangin de Balla numéro 2 Sa donc ñu fekk ko fi tey daal koy nuyu rek ñu doog a tàmbali waxtaan bi champion ziar nañ la. waaw ñu ngi ziar ñëpp di santaat yàlla di julli cent bi sant suñu ñaar waajur di jëlee ci kàddu aussi yi ñu génn àdduna yàlla xarala àjjana caay fete ginnaaw caay fete leen kanam di wax ni Sénégal jàmm yàgg di waaw Sénégal monde entier rawatina sëñ Abdou Karim ak kilifa diine yëpp ak kilifa aaday. tey nga ñëw fi nga xamante ne mooy kër parrain bi Omar Bass le jeune mara ñu tuddee ko làmb ji euh, diggante ambulance bu Thiès ak Wuli 2 avant tout lan moo waral teewaay bi. waaw gis nga dèjà du ñun man dong fi nekk gis nga gars yi fi nekk ñëpp man dèjà dama naan bu li grand liir waxee rek yaakaar naa ñun waruñu sax tegaat baat mais Omar baas nekk na suñu xarit nekk suma xarit aussi mu nekk ni koo xamante ni bu ñu amee bis da ciy taxaw. kon nak euh, bis bi duñ ko xébal aussi ni ku nek tamit sa bis nga wax dëgg yalla li ñuy défal wala man bok dama par sama jëm bop day son suma mbir di lamb burul lamb kon yoon la bu amé bis ñu ñëw taxaw ko gungé ko and ak soutenir ko aussi waaw ñaan yalla aussi yalla may ko ci ndam drapo biñ ko tuddé da koy tuddé bis ban yëgeeg nga ci am fierté la euh, nek na luma neex wax dëgg yalla ndax euh, di dafa yokk suñu mbégte daal wax dëgg yàlla aussi euh, dinañ gën a bàyyi xel ci ay ay domaine am parce que moom borom baax la mérité woon lu raw lii ndax dara dañuy jàppale dinañ taxaw ci conseil ci lépp waa lii wax dëgg yàlla yaakaar naa lii war a gën a ndaw sax ci li am boo gisee également nit ñi niñ ko wuysee comme ni nga ko waxee sànq ñu fekk champion yu bëri ku ci mel ni ñoom Youssou Ndour euh, Mame Balla Farouz Gakou Dóor mën naan daal ñu bëri daat di ñëw teew bis bi daal am solo loolu tamit lan nga ci jàng. moo leen ko lebal parce que tey Mame la ay Youssou ah ay Efran euh, comme euh, kii Feu Rouge euh, Grand Lirou Diane ay ñoom Lamine ñoom ñëpp ay ñoom Badar ñëpp a ngi fi tey jii lu ñàkk fay la du leen tax ñu dajaloo fii di dem ci yenn yi waxtu la ak loo xamante ni mooy loo parce que kenn ku ci nekk magum jëmm nga am nga loo dox mais nag nit boo xamul lim lay def rek li nga ko def rek lim la dafa tax wax dëgg yàlla baax na baax na ci ñun baax na ci keneen loolu la ñu war loolu gis ci moom te nag mooy li may sànq rek ku nekk sa bis nga am wax dëgg yàlla mënuñu ko loolu gunge ko soutenir ko ànd ak moom yàlla may ko ci ndam làmb ja nañu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin maa ngi ñaan yàlla aussi làmb ji dàq ci làmb yi di nuyu mbër géejawaay yëpp di nuyu waa géejawaay yëpp ndax ñi fi nekk ñëpp wax dëgg yàlla gis nañu benn lañu diisoo nañu déggoo nañu amuñu benn problème wax dëgg yàlla. ñu fekk fi aussi ku ci mel ni maam Balla bu Pikine mbooloo est-ce que mën nañ xam ban genre relation ngeen am. suma frère la. suma frère la ñun euh, dama naan ñun peut-être euh, cool yi am na fi mais yàlla seede nañ ñun mel na ni ñoo bokk ndey ak baay boo ñu fekkoon ci mbedd dañuy taxaw saafante nuyonte ñu ñëpp nag mi Mame Balla di yuusu di li gara liiru mee moo ñu mag mais boo ko fekkee suñu bii da nga naan moom sax mooy gane gi wala ni wàccee boppam ba pare jàngaluñ ci loolu ci àddunaam parce que ñun am na loo xamante ni boo ñu magee yilif ñu ñu gis ci yow lu baax dañ koy roy ci yow mooy woyof gi nekk ci moom moom la tàbbil ñu ñëpp ñu am ko mi man di Mame Balla di Youssou di keneen ak keneen mbër géej waay yëpp a yem boo ñu fekkee ci yoon da naan ay dof lañu ndax àdduna jiitalu leen ñoom dañoo jël lépp teg ko ci loxo yàlla suñu borom. ñu gis boobu léegi sa combat taxawul saa la tool dafa décidé def année balance wala. non décidé wu ma dara mais wax dëgg yàlla bu sama am taxawee incha allah ren dinañ bëri bu taxawu ren tamit incha allah bu demee ne bu ko yàlla tuddee incha allah dinañ bëri. yaa ngi ci say waajtaay. waa ñu suñu entraînement rek. sa kàddu gu mujj. su suma kàddu gu mujj mooy santaat yàlla baax di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaan yàlla aussi ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin jàmm daal moo gën ay te yàlla nañu yàlla jàmmal dooleel ñu kattan ñu mbër waaye aussi comme ni ñu ko doxalee ren gi bu déwénee tamit dàq ko saison ren gii ba yàlla def kenn ku ci nekk am ci ay ñetti combat ba ñeenti combat lépp am ci ndam yàlla def mbëru géejuwaay yëpp gën cee réussir am na nag mbër yi ma ciy boole ndax sama nitu bopp lañ mais yàlla ñu yàlla defal jàmm may ñu wér may ñu gudd fan ñaan googu na ñëpp ko bokk sëñ Abdou Karim te maa baax a baax gi yaay booy mboolem taalibeem ak i njabootam jërëjëf kàddu yi na solo jaajëf